Mouhamadul Moustapha woni Mouhamadul Moustapha ci bés bu tedd bi e oɗo ñalawma tedduɗo muy bésu maamam woni ñalawma taaniku moom nag ak mbooleem ay rakkam yëpp woni kanko ɗon ceerno e mu bokk tafsir Moustapha yëpp o wi ɓe ngannduɗaa kanko e makko ndenndi tafsiru Moustapha moo xam mbokku derej o wi anndude noon ko baŋnge enndam to baŋnge ƴiijam moo xam mbokku mbokku diine la walla mo ngannduɗaa o jiida e taffir moustapha ko ɗo baŋnge diine waaye it kono noon ci bismo o wii omo bismo ci waa tayba o wii bismogol taybanaaɓe mboolem waa tayba yëpp o wii denndaangal wuro tayba goo fof daleel ma la ki nga xam ne mooy chef de village o wii moon mo ngannduɗaa kañum woni jom wuro wuro ngo bakka ci gën a famɗude moo xam ñu nekk immigration la e moo xam ni nekk ci dëkk bi la e moo xam étudiant yi jàngala walla étudiant ji jàngooji waaye hitti bismo o wii e nga xam ne doomi kër gi la o ci kër gi o jeyaa kadi e tafsir Moustapha nekk wajjuram mu daan teew ak nun fii bajjuram daan teew ak nun fii o wi jinnaaɗo makko ene jooɗotono eɗen jooɗo eɗen jooɗɗo nde ɗo jonde muy sohna zahara woni sohna sahara iyan thiam iyan thiam njaatige le o wi ko o njaatige kankone momin mi ngi bismu o wi kankone omo bismo mboolem mbooloo mi fi teew yëpp o wi denndaangal eh, na leen o wi ceerno mouhamadoul moustapha salmi waaye yaalal asaf ndax bés bi owi sabu ñalawmo neex na weli rafet na yooɗi niñ ko bëggee woon owi no yiɗranoo ni mel na la ëpp loolu owi wayini ko ɓuri ɗoon loolu nag liggéeyu borom la owi ɗum noon ko golle tafsiru mustafa waaye doom aadama owi konene wonno bani aadama doom aadama rek la mën a doon owi neɗɗo ko neɗɗo tan waawi wonde am na loo xam ne won kay ko ngannduɗaa bu xasee nekk ci xolam owi jomum mu nekk ci ay xalaatam o wi woni e miijooji joomum pour mu am banneex bu mat o wi joomum daña mbelam no timmuɗo mouhamadul moustapha ne na lu jafee ci moom la tey mouhamadul moustapha wi ɗum hannde ene satti e makko kanko ndax fattali o wi sabu siftorde wajjur wu tedd o wi jinnaaɗo tedduɗo ceerno men ceerno alhasan thiam mo ngannduɗaa enen e makko jooni noon tay hande suñuy xel o wii hakkillaaji men suñuy xalaat o mi miijooji men suñuy mébét o wii mi miijooji men yeb tay fof fof hande delu na ci mom o wii ba e makko sabu darnde makko e galle tafkiru mustafa ndax fum ñu faron o wii ɗoo hennoo galle tafkiru tiitu ñu o alla non nabi mu o tiitu ñu o ardiima tiituñu o wii min kulaani ci pour mbooloo mi o wii min kulaani kay du bangi dental ala

tafsiru Moustapha nekk ci kër ko tafsiru Moustapha kala ko ñaanoo ko e ngannduɗaa e ɓiɓɓe tafsiru Moustapha toog nga ci place e jonne tafsiru Moustapha tafsir Moustapha dana la compagne o wi tafsir Moustapha ma o sate o wona denndaangal banngeeji ma o taaro ma o filtoma ne e ko e mu wan la ay mandarga yu bëri ne la soxla naa la waaw ne la soxla naa la préparel baram hit préparé mu wax nit ñi yëg waxut nit ñi yëg waaye fekk na borom xam na ci li mu ne bu ko tafsir Moustapha jëlee nekk ak moom fu mu ne jël keneen dëj xànd ak moom jël njabootam gii paas yëpp jël la nekkoon ci ñoom la cheikh alhaji malik waxoon yonent bi alhaji malik wino nelaɗo allah aqmazuhu fi qulqi kullu nabiyin o wiide wonno nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam allah ƴettimo munni mo jikkuji dendagal annabaɓe mo jelli waliye yebjeo ƴetti kanko noon e dendagal kadi ko waliyaɓe cheikh tidiani radiallahu anhu أقمزوه في قلق كل ولي ويا خليفة الهاج محمد نقف فاقهم بسيادات حديدات ومن بانغا خامين خليفة الهاج محمد أريد يلا جلنا وبي الله جتي بولم لي نكون وبي ci wali yu yëpp o wi denndaangal ko wonno e waliyaɓe ɓe jaarale ko ci mamam sanga o wi o rewni ɗum e taani ko jox ko seydina cheikh mu ne waaye nag yàlla ak maamam o wi kono allah e taani ko dalli jël di ko dolli di ko dolli o wi ƴettimo ene ɓeydamo ene ɓeyda ndollit yoo xam ne amul fu mu em o wi ɓeydaali ɗo ngannduɗaa alaa to haali ba tax na ndollit yooyo tax mu raw leen ɗum tagi ɗon ko waɗa e mokko gon ko ɗum tagi mu dadde li ñu am yaakaar ci lu wér ne tafsir Moustapha mi woni tafsiru Moustapha oɗo nga xam ne mo ganduɗa ay wajjuram jinnaɓe makko dalel mal